si ice di kaas da lay fekk ci baar yi naan ci kaas yi kaas da ngeen di ma jub ligne bi defar face à face li nga la ngeen di game bi seen liggéey ko xool yi mu ngay extrême limite ah liggéey ba am nañ mérite waxal ma fay gi tëj seen gëli gi tëri tëri ba seen mi tëj nga tëri ok xam nga soog ko am su ko bëggee def mu nice mën ko soog ko def xam nga soog ko am boy su ko bëggee def mu nice mën ko soog ko def yeah xam ko soog ko am. bëgg def mu nice mën ko soog def. sa am. bëgg def mu nice mën ko soog def. Eh, mën ko joobi maaji maaji. pour nga képp daaji foog nga agu caabi ko óole ba daaji ñu fa dëtte booji am ndam la ma defet na ma sori. pale rangale brique te mësuñu def. Sénégal salaamaaleykum West Africa. This is your boy Tupsu Warriors from Tuanpel from V4 from SM Limit ñoo ngi siyaare téléspectateurs yëpp di leen wax welcome to SM Limit dal jam, dal jam, yang bi biir Extreme Limit I. for real that's your boy Tupsu Warriors aka xale ba Magdoul Yab I, for real Maam, pour ñi ko xamul di dégg di gis image bi Tupsu Warriors ngay waxal artiste rappeur from Tuanpel from Extreme Limit record Yes, I. yeah salam, salam, guys, yi siyaare di leen bëggee di nuyu Sénégal wërngal këpp ak képp ku xàmmee kanam gi kanam gu yàgg gi <laughs> ku yàgg mën li muy def waa Tivaouane Peulh ak zone bi yëpp ñu leen di charé di charé game bi di charé hip hop bi monde bi ñëpp ñu ngi leen di saare Paco wi foo la yaay yàgg nañ ko nëw ñëwaat na ci game bi yéen a gën a xam indaale package yu am doole Demba ñu ngi lay charé yow yow tamit caporal nga xam ne mi ngi def lu nice ci ci télé yi ci fépp ñu ngi koy encouragé one teñu page mu ngi sama ginnaaw t-shirt yi ne tey lan la lu waral yesaay waa tey gis dañoo teg benn studio de production au niveau de Tivaouane Peulh studio bi mu ngi tudd Extreme Limit Entertainment donc studio bi tey moo nekkoon journée inauguration bi tey lañu defoon porte ouverte pour que gars yi ñëw visiter locaux bi ak exposition bi en même temps mu tombel aussi ñu génnee wàlla benn projet EP bu sept titres boo xam te ni mu ngi tudd Extreme Limit de EP boo xam te nekkul Paco moo ko def du man maa ko def mais Paco ak Tubs ñoo ko def waaw objectif bi mooy pour promouvoir studio bi parce que studio bi label de production la boo xam ne dañoo bëgg liggéey kon donc pour nga liggéey pour nga wax nit ñi kaa leen prix man foog nga génnee son ñoom ñu xam qualité bi ngay liggéey lan la lan lay jar lan la leen jaral pour que ñu mën a ñëw adhéré wu à yow liggéey loolu moo waral t-shirt gis nii lii jeget bi la base loolu moo waral tey journée donc di rafetlu sa ñëwaay aussi nga assister def interview di wax Caporal Info for Real Caporal Info One Love Euh, Paco. tey ñu gis né su maanaam kii bi am am na nu ngeen ko tuddee muy extrême limite. waaw tuddee le wolé ko Fatou Ndiaye tuddee le wolé ko Modou Mbaye. la mo la mo indi extrême limite ak la mo waral. waaw liko waral nak moy que xam nga so nekkee ci ben mouvement dafa am muy doxé. te ñun euh, yàgg nañ si game bi ku déglu ku yàgg si game bi xam ne yàgg na dégg ñu naan la ay digg bi saayit dégg na ay ay penku saayit ku si nekk di ñot di te ñun fi ñu nekkee Sénégal dafa xaw a cate moo tax ñu defoon ko cat ba saayit moo tax ñu ñu in moo waral moo extrême limite comprendre nga ci ci jamono jooju mu nekkoon projet bu ñu yàgg a teg yàgg ko gëm ba tey ji moo taxoon muy dem di dem di dem di dem ba tey ñu réaliser ko euh, mu nekk premier pas bi tey teg projet bi euh, am am ñu si teg seen loxo bu baax a baax équipe bi nga xam ne musuñu musuñu musuñu bàyyi seen loxo parce que nit ki soo nekkee si dara da nga koy gëm soo ko gëmee pare da nga koy song. yéex na da nga koy def gaaw na da nga koy def projet bi loolu la wundu parce que boo gisee buñ ay at la boo yà ku yàgg dégg suñu son di nga dégg dal jàmm dalal jàmm yaa ngi extrême limite. voilà jëlal 69 wala 74 yaa ngi extrême limite projet boobu noonu nga doon dégg ci son yi yaa xam ne moom moom mooy a commencé ñu tëj benn passe bi yenen passe yu nekk ci kanam juste lool la. Demba genre doguma la ci extrême limite bi damay gëna définir extrême limite extrême fi nga waxé français la extrême moy chat, donc extrême limite comme li ñi wax si cartographie Sénégal li wax le Sénégal se trouve à l'extrême ouest du continent africain dans la zone intertropicale kon donc Tivaouane ci zone intertropicale si moom ci zone intertropicale bi la bokk kon donc lo motax ñu tuddee ko chat ba saayet cat ba saayet wu seup yaa ngi biir Tivaouane 39 ngay jël 74 wala mini car exhibition one kon donc lool la lii c'est à féliciter parce que bu njëkkoo Paco yow ya, da nga dem ay jéggi raay dox ba sa dàll yu pënd boo demee foofu suba lañ la wax ñu jox la 9h bala ngaa dugg studio ay ay 17h 18h te macha allah nga toogoon studio yi est-ce que yaa ngi doon reere nga kat bi bi te ñun yàgg nañ xam ne li ñuy daj ci si affaire ci son yi bëgguñu suñu nouvelle génération bi nga xam ne ñu ngi fiy nekk di dund hip hop war ñu ko daj parce que amaana nit ku nekk soo ñëwee jog si benn xaaxaam soo nitee dëgg war nga ko mën a pousse ba ñuy nekk sa ginnaaw bu ñëwee duñ jaar foofu waxuma la jéggi raay mais avant jéggi raay rek yàgg nañ dem ay caaro yi ay fa fu nekk di fa def ay son xam nga te waroon nañ xamoon nañ ne yàgg-yàgg dinañ ko taxawal fii ba booy yi duñu daj loolu parce que affaire bi day avancé te loo boo bëggee dara dangay xool fan la toll nga nekk ci loolu juste lool moo tax ñu gën a euh, focus ko ba teg ko ba pare war ko jaay mu mel comme studio yi ngay dégg ci temps bi di def ay preuve am loolu moo taxoon sa affaire bi gën a jël temps parce que bëgguñu defantu dañu ne mën ko soog ko def buñ ko mënul la ñuy xaar mhm. parce que ñun amuñu lu ñuy lu ñuy lu ñuy njëkkante wala loo xam ne dañ koy jaayante wala ñu am leneen mhm. parce que lépp lu ñuy def dañ koy teg xam-xam ak mën ko soog ko def mhm. loolu moo waral ku déglu projet bi si biir di nga déglu wax wax yooyu yëpp ci biir projet bi parce que ku si nekk sa idéologie ak sa concept li mu lay laaj moom ngay faral di def quoi. mais studio bi parce que loolu itam dafa am solo ñu ñu ci laaj studio bi son kese boo boo gisee ñu njëkk a lancé benn clip. <laughs> def euh, yi dañ koy dañ ciy job shop shooting yi xam nga. lépp dañ ci euh, ak ak marque yi. Mm-hmm. parce que nee la projet la par ndànk-ndànk la ñuy def ci benn page. bu la bett tey bu ñu waree ñëw <laughs> yaa may dégg ñëw fekk si la defal la lee loo loo xam ne yow foogoo ko mm-hmm. ku bëgg clip ñëwal dañ la koy defaral ku bëgg son moo xam mbalaxmaan nga moo xam yow. acoustique ngay def moo xam jàng ngay def moo xam rap ngay def boo ñëwee di nga fekk ay techniciens yoo xam dañ la accompagner ci li nga bëgg moo xam shooting nga bëgg tub sa ngi nii xam nga moo gën a moo gën a jekk si domaine boobu moo xam design nga bëgg track nga bëgg lépp loo bëgg dañ la koy defaral incha allah ok uh-huh. bon comme si développement projet bi maam projet bi extrême limite la tudd nekkul kese studio quoi extrême limite entreprise la boo am extrême limite record muy studio bi am Stem Limit Shop Stem Limit Shop boo ko déggee mooy habillement day jaay habillement day jaay ay marque comprendre nga ay ay ay ay yére traditionnel soo bu exemple artiste bi amul dara looy wuti feneen bu la bu la neexee nga ñu ñu prise la son defal la vidéo defal la track affiche bi defal la design design mooy defal la ay t-shirt abi la et tout dañuy def lépp quoi tout support communication Stem Limit da koy def en grosso modo. ban message ngeen nga xam ne ñoo fi ñëw suuf waaw di kontaan di kontaan si ñoom rek. Mm-hmm. di leen wax ne yombul nga wootee nit ñi ñëw. Mm-hmm. kon soo wootee nit ñi ñëw am na fu ñu la teg. Mm-hmm. te bu ñu la tegee fenn war nga leen ko delloo moo tax ñu leen di ñu leen koy delloo leen wax ne ah rëccuwuñu lu ñu leen woowee. comprendre nga rëccuwuñ tamit lu ñu doon jaayante pour teg ko. niñ ko tegal xam nañu tamit jar nañ ko parce que ñëw nañ ak accueillir ko ñëw en masse ku si nekk nga dugg xam nga wane na yow fier nga ci li ñu def kon loolu. Euh, mën naa ne dañ naan yéex ngeen ko def kon mën naa ne kon loolu dañu ciy kontaan di nuyu waa Tivaouane Peulh yëpp ak waa zone bi yëpp ak Sénégal yëpp parce que am nañu jóge yeneen saayit boo xam ne dañuy paas dugg oto ñëw pour pour pour xool affaire yi kon loolu lu lu am solo la si ñun ñu ngi leen di sant di leen gërëm yow tamit ñu lay sant ak mm. bépp euh, DJ bu ñëw fii wala média yi ñëw fii tamit pour couvrir affaire yi yëpp ñu ngi leen di charré di leen bëggee di leen wax ne ah wuñ daal li ñu leen doon accueillir tey tey tey fii nii won leen package bu ñu génne tay pour présenter au Sénégal quoi. ayca sama dernière question ci tubsu moy euh, yag ngeen wax né Tiwantul moy capital rap tey confirmer ngeen ko moy sam benn affaire ñu gis né Tiwantul amna ay jeune talent yo xam ci rap kessé lañuy ñuy yëngu. fees na fi del del del tay nan nga gisé ñi nga xamante ne dañoo xaajoon naan fii mooy sama studio fi moy sama studio ak studio bi tay ñan ngeen ko bëgg ngeen ko ñëw. wa bon studio bi premier objectif yi nekkul saa yi ñun ñoy premier

studio bi lii nag nii lay liggéeyee wane information yëpp yi si war pour que gars yi mën a contacter ñu ñëw ñu liggéey en masse quoi loolu la fa demee. seen dernier sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne projet bi échauffement la échauffement la ñun rabaguñu sax. Hmm. yaa ma dégg. mais lu ñu mais échauffement la nag. Hmm. waaw parce que euh, ku ma xam-xam ne yàgg ngay dégg ma naan la maa ngi lay dikk album. Hmm. mosuma si génn mais. comme que dañ doon échauffé wu boobu boo gëjee football foog nga échauffé wu nga daw ñëwaat xam ne ne alba euh, projet bi échauffement la euh, nañ xaar lu dóob lu soxor jël pause yi xam nga ku ñu ngi ñëw lépp a ngi ñëw si kanam. <laughs> wala waaw gars yi moom ñu ngi waaw bàcc. Mm. asuwi foo xam nga gars yi xam nga ñu leen di char di leen wax ne en fait euh, manqué ngeen ñu manqué ngeen ñu quoi ci ci jëmm. mais manqué wu ñu ci xel ak ci xalaat ak ci ak ci ak ci ci lépp lépp loo xalaat rek seen loxo ñu ngi ñëw seen xam-xam seen lépp ak seen bëgg-bëgg ak seen xol kon di leen wax ne ñun ñu ngi fii pour ñoom ñoom ñu ngi foofu pour ñun di leen ñaanal jàmm xéewal wër lépp lu ñu uti ñu teel ko am ñëwaat seen njaboot ñëwaat seen seen seen famille muy Wiifo United kon ñu ngi leen di siyaare jëm ñëpp ak gars yi nekk fii euh, Salif ak gars yi yëpp nga xam ne moom mooy président bi ak techniciens yi ak. puy cheveux mi nga xale fu ñu ko woo mu ñëw xam nga <laughs> mi ngi noonu daal gars yi bu leen limee sax dañuy juub fii mais en tout cas ñu ngi am contentement di woo ñëpp di leen wax ne waaw gis nga Zeyna euh, sama sama tàggatoo su weesoo sant la gërëm la ak presse bi ñëw fi yëpp pour couvrir pour couvrir journée bi pour mu réussir ñu leen di sant di leen gërëm su weesoo loolu di wax gars yi EP bi Extrême Limite sept titres la composé disponible na sur toutes les plateformes bu ngeen demee YouTube ngeen def Extreme Limit Entertainment di am sept titres dañ ko fa may gratuite audio mag disponible na fa semaine bi ñuy dugg dina disponible Deezer Spotify feneen ak feneen kon donc nag gars yi resté connecté dem like ko instant dañoo génnee pour may ak kan bi ñëw ñu vivre savourer projet bi xam lu saf yes ay Facebook plateforme yëpp plateforme yëpp externe limit entertainment moo fa nekk boo bindee externe limit entertainment dañ lay indil suñu compte yëpp nga vérifier xool dem gëstu donc su weesoo loolu ñuy wax one love gars yëpp di wax gars yi nañu xaar nag yeneen bagage mm-hmm. parce que nekkul lii kese quoi comme li ñu wax estomac la estomac la kon ñu ngi ñëw ak jeu bi quoi mm-hmm. esaay lan ngeen di tàggatoo fii nii ci seen vidéo yi nii ci ban son ngeen ngeen may may nii nii aja teel a yesaay teel a teel a teel a teel a joxante la ok come on hey yow XL ci sa zone du yëfi kenn def ko sa bopp XL de seconde mooy de fës yónnee ko noonu XL comme toroon xajul si bopp bu vide now XL mooy doroon tim leen mbaaru got bi ñu moom ay ten yër lañu rëw ngir atteindre benn projet yee yee mën def foog échec dolli sant bi mu yembé respect ñu ko xaar fekkee yee yeah sama OG yi du ñu changé si catu littoral bi intertropical bi ñoo ngi fa daaj romb obstacle yi dem nañ essentiel bi loo ñuy laaj contenu ni ngi nii tënku ci chapitre yi dañuy try studio de pro. audio image vidéo design so bu bel solo one africanité First sa marque ci tës wane personnalité télé bee ci bees ak ci rap ak diversité gestion bu parfait ca dëgg-dëgg expérimenté yesaay <laughs> yeah waaw kon ñu ngi xaaree ñëpp di leen wax affaire yi mën ko soo ko def la eh mën nga ko mënoo ci tuus am nga ko mënoo ci tuus surtout nga bun jox jeeg ñu am ko tey suba ñu puus indi la lu gën a jeeg iPhone de téléphone tuus weddi nga wëtal ñu dégg haut-parleur bu dul suuf diction bi ngay xeede rejeplan bu dul fin bi foo lu mu liggéey fekk du ko fay ndax fii ñu mënul foog la ñuy far ñuy teg ne frais di xaar ku leen fay ñëw rek remonté seen maam ay mbaam teg leen saret def leen jaam rëy ngaam ne ay daam koy tegal biit ma génn jeeg yëpp la yeew jarul kenn naan diril danga nga bëgg a xam ñëwal jeew lu pako ju def ci kaw diril bic boo ko bëggee def mu kuul da nga war a gëstu bañ ko teg ci gas di suul ñaari flow yu mel ni fuul lu ñu bokk school lu ñuy job nga toog di nice nga teg si ice di kaas danañ fekk ci baar yi toj say kaas si kaas ñoom ci rythme bi defal fast sa fast di ngeen laggi na geen bi sa dooñu romb bu ngeen extrême limit? liggéey ba am nañ mayit waxal ma fay gi tëj seen gëli ko fi tëri tëri ba seen nga tiit nga tëri one love niggas